salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum sëriñ yëpp nag sëriñ yëpp laa wax kat yi duul ci match yi yëpp bu bu bu jeexee ñaan leen yàlla Sénégal gagné bu ñu gagné yéen ñëpp lay xar seen defal ndey tout yéen ñëpp lay teppi seen data ndey waa Karamba moom xanaa daa jaawale kaa yi Karamba xanaa da ngaa jaawale kaa yi sama xarit bi wala yow bi bii ya jëndee waroon na liggéey dañ koo mujj liggéey jox ko waa Angleterre sëriñ yi jéemoon na jàpp zoru euh, euh, Angleterre yi moom la ñoom ñun suñuy zor lan mujj jàpp ñuy yolli yolli. di patax pataxi di footballu ne yëkk mel ni ay nagu dëj kenn football ci kenn kenn lu salte ngeen di football lii la tubaab naan l'expérience fait la différence bu ne football Angleterre a tax yen de ngeen di tëjëx tëjëxi ne yëkk mel na nagu dëj ñu ne expérience leen di football ak ñoom taj taj tëj bëm defoon naa vidéo fexeel ba bu tojee suñ jot ndey nan génn ñu manifesté wu ku ne taal sa oto wëree dëkk bi naan maa dugal bii dama jaawale kan yi dugal ko ci camp wu mais gënna ji gis na bii bi ku nekk na manifesté wu sëriñ bu ci nekk dinaa xar seen data nday benn par benn envoyé leen ma vidéo vaar yëpp ma lekk seen lëfal nday A ba Z ba match bi jeex incha allah dégg nga na ngeen wër yéen ñëpp ngeen sibele ngeen ne toj nañ suñ lëfal nday ñun sëriñ yi kattaale suñ nday ñun ñi sénégalais yi dégg ngeen merci beaucoup